ñu dem waaw jërëjëf naka noonu tamit gis nañ euh, bi Nigeria amee ñett avion ay juróom benn avion ñëw euh, naka noonu tamit euh, Burkina maam Burkina Faso am nañ avion benn avion bu ñëw naka noonu tamit Algérie am nañ avion bu ñëw kon te ñi xool ci pandémie bi maanaam li nga xam ne mooy xew-xew ñëpp di lockdown di tëj seen boore waaye terewut bi bàyyi xewle ñooy ñëpp dafa mel ni xool gis nañ ñi d'accord yebal ay avion ñi ñëw ñi yëw ay ay moto naka noonu Mauritanie wax nañ ne deux cent véhicules maanaam two hundred véhicules lañ may officiels yi pour ñu ñoom tam ñu ñëw teewee euh, rob gi euh, kon loolu sant yàlla la am yaakaar la si Mawlana euh, Cheikh Ahmada Tidiane ñi dendale ko ak baayam bu baax ba ci xabru ba di Xaaji Ibrahima Niass ak mboolem nawla yem fu fekk ñi ndokkeel suñu sëriñ bi euh, ki nga xam ne mooy Mahi Niass radiyallahu anhu euh, ñëpp seedal ko moom it ku suufee ku teey ku baax ku bëri xam-xam ku mel ni sëñ Moustapha Guèye mu mag ma ci Sénégal borom xam-xam boobu sànq si ngoon ñoo ngi jot audio boo xam ne mu ngi ko def moom it di témoignage di euh, jaal yónnee jaalam ci xalifa bi gaañu nii di Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane waaye di sant. tey gërëm tey seede xam-xam bu rafet ak lawet bi nga xam ne moom la Cheikh Mahi Niass radiallahu anhu am wax ne ne bokkoon naa moom daara fii ci Sénégal bokk naa moom itamit madrasa fële ci Maroc kon xam na ko baax aalim la ah, kon dañoo wax ne rek eh, ah, moom moom moomu aalim la eh, mufti la mudarris la eh, mustatsawif la faqih la quddaat la waaz la te loolu buñ ko waxee dañ ko jëlee ci euh, mbind nga xam ne nii mooy baayam muy Mawlana Alxaaji Ibrahima Niass si leetar bi nga xamante ne bindoon na fukki doom ak juróom yoo xam ne mu ngi leen yebaloon délégué soon ñu war a ca Qahira ca Cairo ca Égypte euh, ñooñu noonu bokkoon na ca euh, ku ñëw wax Cheikh Mouhamadul Nazir Ibrahim Niass Cheikh Mouhamadul Mamoun Cheikh Mouhamadul Mahi moom mi xalifa bi tey Cheikh Mouhamadul Makki Eh, Seydi Mbaye Thiam Abdou Salam Niass eh, ak Cheikh Mouhamadul Mamoun maanaam bëri na eh, ñu continuer ñu ngi doon wax ne comme boobu mooy délégation bi nga xamante ni Mouhamadul Mahi mi toog tey mooy xalifa bi tey bokkoon na ca te bokkoon na ci ndénkaane yi leen bàyyi doon dénk na ngeen dem jàng li tarjoo ila biladikum ngir ngeen dëpp ñëw si seen réew Eh, fiikum quddaatun bokk na ci yéen te nga ñëw am ñoo xam ne dañooy nekk ay qaadi wa waazun ay waaraatekat kutaabun ay bindkat muftinun ay mufti ñiy def fatawa na ay jàngalekat na nekk nit ñi mat wa mukammiluna nekk nit ñi matale naka noonu noonu lañ gisee doomi bàyyi yëpp macha allah góorgóorlu neen eh, rawatina Cheikh Mahi Niass bi nga xam ne Moustapha Guèye wax na ci waxam ne xoolutoon nit ñi ñëw nañu wala nit ñi ñëwuñ weeru koor bu nekk rek dana toog ci jumaay baayam ja toog fa baayam daan toog ah, di def la baayam daan def muy tafsiru Qur'an